président heure bi nii ginaaw yow ak man ak ñu ma fi indi ak yàlla ñaari nit kese képp rek dong ñoo xam ne maa ngi toog fi ak yow ba may dugg jot naa leen téléphone te su may jël tamit dinaa leen woo téléphone kenn ki mu ngi tudd Khalifa Sall kenn ki mu ngi tudd Ousmane Sonko mu ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko te am naa yaakaar suñu toogee waxtaan dinañ jubóo mu ne ma ah bon ne ko waaw ma ne ko parce que président lu may gis nii arrangé wu mu ne ma lan nga gis ma ne ko man lu ma gis mooy yow doo bàyyi te ñun tamit du ñu bàyyi ma ne ko te buum bi day dagg ma ne ma moom nga gis ma ne ko waaw ma ne ko te buum su daggee du la arrangé ñun tamit du ñu arrangé ma ne ma d'accord kon baax na dinaa ci xalaat ma génn woo ñu may woo wax leen lu ma leen di wax kon su amee ci seen déclaration yi kenn ku njëkk a wax nekk que moom sax xalaat na ni que gars ñu ngi waxtaan ça fait pas sérieux tu es informé en amont pendant et en aval loolu mooy dëkk les Sénégalais me connaissent moi j'ai 18 ans d'actif sur ma carrière politique j'ai jamais été pris à défaut de déloyauté ou d'infidélité ou de trahison je suis un pur produit de l'opposition politique sénégalaise te je suis pas candidat à l'élection présidentielle quel est, quel est l'intérêt que j'ai donc tey alors il semble que suma xarit Ousmane mu ne waaw dama ko nekk Macky daf ma nekk benn juge Pastef moo ko jugé xaw ma la nag xaw ma nu ma ko waxee mais Ousmane <laughs> moom xam na ne que su nekkoon juge Pastef du ko fëgg 200 millions amande moom xam na ko te man lu ma seq ci waxtaan ak président Macky Sall mënu ma ko fësal du suma cër lu ma ci noroon wax ak Ousmane Sonko wax naa ko ak Ousmane Sonko féetoo na bor lu ma noroon wax Khalifa Sall wax naa leen ko te ñoom ñaar ñëpp kenn ci ñoom ñaar il n'était pas opposé mbokki internet yi nga xam ni yéenay seetaan NG TV ñu ngi leen nuyu baax di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche ndax vidéo bu ñu ngeen mën koo gaaw jot euh, coow mi ngi way diggante Barthélémy Dias ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko euh, ginnaaw bi nga xam nag ni ki démb Barthélémy Dias def na benn sorti euh, def ci ay révélation loolu nag jur ay coow yu bëree bëri ñu naan Barth dafa wor Barth dafa wor Barth dafa ci alors ka waa Pastef yu bëri ñoom noonu lañ ko gisee mooy que ni Barth daal daf leen a ci alors que demewul noonu euh, Barthélémy Dias ci li nga xam ne leeral na ko ci interview bi moom nee na leen laata may dem ci ci ci ci Macky Sall ñaar ñii laa njëkk euh, waxal par téléphone muy Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moo di Khalifa Sall loolu yaakaar naa Barth moo ko wax ci interview bi mu leer nañ ba pare loolu ñu koo tënk ba pare Ousmane Sonko naat moom ci déclaration bi naan am na ci euh, benn membre bokk ci Yewwi Askan boo xam ne Macky Sall dalal na ko nii ak nii loolu jaxase la loolu maanaam dafay jaxase Barthélémy Dias ak ak ak sénégalais waaye Barthélémy Dias ak waa coalition waaye Barthélémy Dias ak ay farandoom jàpp naa ne kàddu yooyu Ousmane Sonko yëkkati loolu moo waral Barthélémy Dias ñëw tontu ko weddi nag moom du ragal setal sa der la parce que Barthélémy Dias bi biñ waxee lool ñun ñii ñëpp dañoo jàppoon maanaam kan la war a doon. kan la kan la Macky Sall war a mën a ci ci ci ci leader Yewwi Askan Wi kan la ci war a doon te lépp di di xiini xeena ci Ousmane Sonko waxul ni baat li mu jaas lan dal waaye daf ko junj waaw daf ko junj baat nag bi seetaane seetaanee lool daf cee gis boppam loolu moo tax ci lendemain bi ngeen gis baat Barthélémy jaas euh, répondre loolu ci ci janoo bi doon séq ak ak ak taskati xibaar yi waaw loolu yaakaar naa ni euh, kàddu la yoo xamante ni gis na nag ñenn ci waa Pastef yi ñi ngi def ay ay ay ay ay ay vidéo di dem di désabonné fële ci ci ci page Barthélémy Dias page Facebook am gis ñu naan Barthélémy Dias perte na ay beaucoup ay abonnés yu bëree bëri ginnaaw bi nga xam ni euh, interview boobu dox na fi ak ñenn ci taskati xibaar yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi waaye nag jëru ko waaw am na loo xamante nii moom ànd la rek waaw ànd moom bu waree jeex ku nekk mën naa demal euh, sa bopp waaw ku nekk say militant ndax Barth moom wax na ko moom nee na moom Khalifa Sall la la la àndal waaye respecté na Ousmane Sonko ndax ñoo bokk euh, li nga xam ni moo di coalition Yewwi Askan Wi waaw kon yàpp naa ne vaar yi nga xam ni gars yi ñu ngi koy def ak ay Barth yaay fooxoon lii loolu yëpp jëru ko ndax Ousmane Sonko moom mooy fooxoon ni Abdoulaye Wade duma mas a du Abdoulaye Wade duma a bokk ak moom coalition duma mas a ànd ak moom te ñii nii bokk li nga xam ni moo di coalition Yewwi Askan Wi politicien Sénégal ay waxam moom mën naa ni maanaam jërul dóor si doom waaye nag am na li nga xamante ni maanaam euh, bu fekkente ni àndu leen rek yow ngay wax ci nit ku lu ñaaw loolu moom lu ko gën a salte amul mais ñenn ci waa Pastef fi ne nii ñi ngi commencé dal ci kaw baat li ma jaas yenn façon dal yoo xam ni te bërki dem bi seen leader génnee euh, euh, waxal ki nga xam ni moo di baat li mi jaas ñoom loolu waxuñu si dara te loolu Ousmane Sonko bi mu ko waxee ñëpp xam nañ ni Barthélemy Dias lay waxal waaw bi nee Macky Sall am na ku mu recevoir ci leader waxtaan moom affaire yooyu noonu mënoon na ni Barthélemy Dias la waxal ca Barth avant moo dem woo na ma kon Barth du génnaat bu su fekkoon waxoon nañ ko na mu amee ni carrément Barthélemy Dias Macky Sall def ko woo ba ko ba mu baree woo na ma woo xalifa nii ak nii ak nii comme que ñoom ñoo seqal coalition Yewwi Askan Wi mais waroo mën a ñëw ci ay live di di di di yàq der jàmbur loolu Barth Euh, maanaam day dafay dafay gën a jaxase xelu sénégalais waaw loolu moo tax Barthélémy Dias sotti bi nga xam ne def na ko démb moom leeralaat na lu bëree bëree bëri Ousmane Sonko nag gars yi moom li ñu yàggoon a bëgg ñoom peut man nga ne ñoom loolu lan am mooy lan nu ko mën a écarter waaye tamit am na li nga xamante ni Ousmane Sonko euh, yenn yi da naan maanaam ñoom fi pièces yi ko daloon pièces yi ko laloon moom ci la ci la tàbbi quoi ndax moom bu fekkente ni dem na bi nga xamante ni. Euh, euh, Ousmane Sonko affaire Adji Sarr bi ñëpp a ngi naan lii projet politique la projet politique la Ousmane Sonko weeru daa weeru de mënuñu ko ci tëj ba affaire Adji Sarr bi jàll gars ñëw nag sukkandiku ci affaire Mame Mbaye Niang parce que bu ngeen xoolee atte woon nañ ko atte woon nañ ko ba pare ba loolu féete boor ba ba ba ba ba ni maanaam Ousmane Sonko euh, deux mois avec sursis affaire yooyu noonu mais gis nga bi ñu ko attewaatee ba ba appel bi appel bi ni ki démb gaa def ko six mois avec sursis maanaam yàq yàq yàq yàq yàq xañ Ousmane Sonko ay duraam euh, donte bëri na ci sénégalais ñi nga xamante ni amoon nañ ci moom yaakaar trop ngir fal ko 2024 euh, jafe-jafe yi nga xam ne seen réew mi ngi nekk di ko di ko di ko di ko di ko dund jàpp na ne Ousmane Sonko moo leen si mën a génnee affaire yooyu noonu genre euh, ñu xëy xëy ni la Ousmane Sonko mu du dem élection Ousmane Sonko kon kañ lañ ko nar a xaar 2029 wala loo xamante ni kenn xamul quoi ak. Sénégal jafe-jafe yi nga xamante ni nekk na ko nii ñu xëy xëy ni la Ousmane Sonko bokkatul loolu jàpp nañ mbokk loolu metti na trop loolu metti na trop waaye jombul euh, Ousmane Sonko mu xëy na dina defaat déclaration ci minute yi ñu ci ci waxtu yi ñu dëgmal waaye ñi nga xam ne ñoo di waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom jamono ji ñuy wax ak yéen euh, ñi ngi amal benn euh, coal benn benn benn benn déclaration fële ca siège bu PRP mooy parti bu Déthié Fall Euh, li nga xam ni àtte bi nga xam ni daal na démb ci kaw Ousmane Sonko waaye tamit ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal jombul ñoom dinañ ci waxtaan ñoom waa leader yi coalition Yewwi Askan Wi jamono ji ñuy wax ak ñi nga amal li nga xam ni moo di euh, déclaration waaye lu soxal mbirum Ousmane Sonko ak baat Barthélemy jaas jàpp naa ni du ré xëy la njuumte la njuumte bi nga xam ni maanaam mën na ni ci Ousmane Sonko la jóge parce que Ousmane Sonko. moom moo njëkk a euh, déclaré wax yooyu bu ngeen gisee Ousmane Sonko ci déclaration bi nga xam ne defoon na ko barki démb ci page Facebook am euh, ci la démentiré loolu Bart nag dafa ñëw démb ngir weddi loolu ndax Bart sax démb bi muy bi mu tàmbalee déclaration bi mi nga xam leen ne maanaam tey ñëw ma pour pour pour pour tontu. waaw tey ñëw pour tonton ñëw ma pour xuloo ñëw ma pour dara mais dama ñëw rek pour indi ay ay leeral parce que ñoom euh, maanaam leader politique am na fu sa réew di toll foo xamante ni yow da ngay maanaam da ngay jël intérêt tegi ne le maanaam jiital sa réew Barthélemy Dias li mu waxoon ca la a nekk nee na ko Macky Sall àdduna du neex ba ma ba ma ànd ak yow te du ma sàmm waaye nag nit lu ngeen ñàkk ànd ñàkk ànd ñàkk ànd bu réew mi soxlaa yow da ngay tege sa parti ne tege tege tege mbañeel ne dem teewal ngir sa réew ndax Barthélemy Dias défilé 4 avril bii Macky Sall daf ko invité mu dem toog ñu bëree bëri ñu ngi naan bu doon mën a bu doon mën a du ko waru ko woon def def ci alors que loolu du dara mi nii bërgi dem bi mu amee forum bi bi mu invité Macky Sall Macky dafa ñëw teew ci forum bi jàpp na lool lool lool mooy Sénégal politique nag moom moom politique moom xanaa moom pour sa réew taxut waaw li ngay def nii di sonn nii dafa dafa da nga war a jariñ sa réew dara ko danga nga war a jariñ sa réew des fois nga teg sa intérêt fële jëlee intérêt réew mi waaw bu fekkente ni yow dialogue bi jàpp nga ni loolu la nga ñëw tegal ko say saat ni ko lii Macky Sall troisième mandat waroo koo am doo ko fi amee. ngeen bind loolu teg Ousmane Sonko dafa war a bokk ci élection yi par A ou ngeen bind loolu teg ak yeneen ak yeneen ak yeneen point par point point par point point par point waaye jàpp ngeen loolu boo ko defee ñàkk fayda la wala dara non non am na li nga xamante ni moom bu intérêt réew mi taxawee da ngay da ngay tege ne sa intérêt waaw euh, dem ngir ngir ngir ngir sa réew waaw. kon jàpp naa ni yëpp ay désabonné ak Barthélémy Dias warkat la affaire yooyu yooyu yëpp yaa ngi gis ñu commencé di ko di ko diko ko di ko ko di ko partage naan Barthélémy Dias warkat la Barthélémy Dias du warkat Barthélémy fii kuñ fi tuumaal nga génn seetal sa der affaire yi loolu la rek Barthélémy Dias da nga koo tuumaal mu génn wedde nii demewul nii nii la deme parce que baat bu ñu waxul woon ni man bi ma Macky Sall wooyee woo na Ousmane Sonko woo Khalifa Sall ñu waxtaan lu yaatu Barthélémy Dias bu ko léerlu woon ni keroog Ousmane Sonko léerlu ko ci déclaration bi Ousmane Sonko keroog def na déclaration waaye waxul lu jëm ci loolu leeralu ko Ousmane Sonko waxul lu jëm ci loolu leeralu ko waaye Barthélémy Dias moom daf ko leeral ci ci ci ci ci ci déclaration ci ci janoo bi nga xam ne janoo na ko jëm ak taskati xibaar yi muy lu muy muy muy lu jar bàyyi xel daal am na li nga xamante ni daal réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi politiciens yi réew mi na leen ñor mais pas seen intérêt bopp réew na leen mais pas seen intérêt